إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين غير العصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مبارك من الدنيا بلين سمت ñu jot li suñu njëkk te dajale buñ fi dajaloo ci lu dul dara lu dul ngir yàlla ak yonent bi ak suñu njëriñ ëllëg jaam dellu ci borom rek mooy li ko war bu toogee jëmmi jamono di jànkonte mbiri àddinaam di lekk di naan di nelaw di yeewu di doxee soxlaam war nay dellu ci yoon yu bari ci borom di seet ëllëgam seet tëral penc ba di xalaat kër ga mu jëm te xamul fan la kon nag képp koo xam sabat na ci daje bi ñu daje fii am nga ngërëm am nga tuyaaba te mën na joxe ne bu nit jéggi jëm ci bu xam wala tuyaaba la joo xam ne yàlla rek xam mu toll kon fa mu jógee nu gën a sore rek la tuyaabaam gën a bare kon nag daje bi lu am la jamono joo xam ne ñëpp am nañu feex mu yaatu ku nekk jëm ci la nga bëgg ñi jëm ci pop ñi jëm ci waxtaan ñi jëm ci nelaw ak noppalu sol seen dàll jëm fu ñuy dégloo ji mbiri suñu borom di fa déglu mbiri lislaam ñoom ñu war sant seen borom la ndax baaxu yàlla la loolu dellu si ci yàlla rek ndax fàttali ko fàttalee ndax bari na ci lool ñu ngi sa waxtaane ci ay béréb ci ay jamono ndax suñu borom moo ko na ci alquran وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين وتقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين وتقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين عز وجل تبارك وتعالى

ngir jagal ëllëgam kan mu joy ne bokk na ci ñi tax bokk na ci nit di bokk na ci ñi dugg ci tiis ak mbugal ak metti tak naqar bakkan di lu sàggan bu mu sàgganoon ci wàllu yàlla <coughs> di mebet su fekkoon ne yàlla jubaloon na ko ba mu bokk ci wayagal ragal yàlla ñi mucc ci bis boobale muy mébét ba mu séenee mbugal ma jëm si ci moom te xam ne du ko mooy mukk ne xool ma mën a delluwaat àdduna ba jëf jëf juma ma tàqaleeg li jëm si ci man tey te mënuma ci dara suñu borom a koy tontu bala qad jaatka ayaati fa kadabta biha wastakbarta wa kunta min alkafirina kay sama kaawteef yi ma wane woon ci àdduna ak yonent yi ma yónni woon ak mandarga yi ñu leen jox yépp da nga ko wonoon gannaaw fulaaloo ko musulaa jaral dara nga weddi ko cik rëylu ak réer ak càggante nga bokk ci ñi weddi sama xéewal suñ borom ne bis booba da nga gis gaa ñi fenoon ci kaw yàlla maanaam gaa ñi nangu woon gis la mu wone nanguwuñoo jaar fa mu leen rëddal nanguwuñoo topp lam leen sant seen xar kanam yi ñu kukk yu ñëkk ñu ànd ak naqar ak tiis ak metit mooy yawmal qiyaamati tara llazina kazabu ala llahi wujuhum muswaddatun mu ne alaysa fi jahannama mathwan lil mutakabbirin ndax safara mën na xat ba jaam bu rëylu ba wàcc li ko boroomam digal du ca am place mënu la nekk kon yàlla azza wa jalla tàgg na nit ñi léegi fii ci lay xewi ëllëg ba du ci am sikk bu ko nangoo xam bu fekkee na nangu na koo xam yàlla wan na ko lu mu ko xamee bu ko yàlla bindee nag ci xol boo xam ne dafa mel ne tax yaj bu ñu yettul lu yàlla wax wax lu yonent yi wax wax lu borom xam-xam yi wax wax lu <coughs> awliyaa wane ci kawteef dañ koy wan gannaaw te duñ ca mën dara nit jóge fañ ko jëlee indi ko fii ñu ko indi muy béréb buñ koy nattoo ndax lañ ko tere dana ko wattandiku ndax liñ ko sant dana ko def wala kay day topp bànnee xam jiital ko ànd ak seytaane ba daañu daanu ci fudul noona suñu borom indi ko ci àdduna ngir loolu di ko seet nag ba xam naka lay jëfee tey moo tax mu ne fa amma man taxa wa aasara alxayaata dunya fa inna aljahima hiya almawa wa amma man xaafa maqaama rabbihi wa naha nafsa an ilhawa fa inna aljannata hiya almawa jëpp jëmm joo xam ne bew nga wala nga jëf-jëfi ku bew nga fab sa àdduna teg ko ci sa kaw àllaaxira maanaam nga jiital sa àdduna rek mujjal mujjal sa àllaaxira safara yi ñuy wax jaxim mooy sa dëkkuwaay ëllëg hmm. ki ragal taxawaay ba muy taxaw ca kanam boromam ëllëg def ko ci xelam def ko ci boppam di ko wattandiku ajjana mooy këram ëllëg mooy man kaana yuridu al ajilata ajjalna lahu fiha ma nashaau liman nuridu summa jaalna lahu jahannama yaslaha madmuman madxuran yàlla dafa ne nit addunaa ngi nii danaa ko neexal ci sa xol rafetal ko ci sa bët di la seet ne nag tere naa la ko booy si jëlee lu dul mbugal ëllëg ak safara soo ko wanee gannaaw nag xemem li nekk fi man bu ëllëgee ma fayee la loolu ba sa xol sedd mu ne képp koo xam ne nag li teew nga bëgg te mooy adduna adduna mooy sa it ji gën a li nga xam ci àdduna rek la yem seetloo lu jëm ci ëllëg dara yàlla nee na li nu la dogalal ci wërsëg rek doo ko wees waaye loolu rek lanu lay gaawale jox la ko fii ci àdduna bi waaye kat ëllëg fa ma la jëmee sooy boo nga xool ko ndax yàlla dafa jënd dafa jaay àjjana doomu aadama yi lu mu leen ko jaay seen bakkan ak seeni alal kon jullit moomatul bakkanam moomatul alal moomul alalam ndax bu fekkee ne dafa bëgg àjjana ëllëg te yàlla xamal ko ne ko dama koy jaay te li ma koy jaayee mooy sa bakkan ak sa alal kon bu yàlla soxlaa moomatoo sa bopp bi nga xamee ne wane nga ne njaay moomu dog na ndax def nga sa bopp jullit te yaa ngi bëgg àjjana ëllëg sa alal jëppit li ci yàlla soxla ko war a def bu yàlla soxlaa waratoo soxla dara ci sa bakkan wala ci sa alal mooy inna allaha ashtara min almuminina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul janna saaba yi nga xam ne ñooy ñi ci njëkk a wàqanteel ñu di doomu aadama yu dajeek muhammad ko dégg la mu wax leen ne seen bakkan ak seen alal yàllaa ko moom waaye ci yërmandeem nee na leen mën ngeen ci am àjjana ci bu ngeen ko ko joxe loolu ci lañuy sukkandikoo jihaar doomu dama ji jihaar mu jógee wàcc na këram wàcc njabootam wàcc fa alalam wàcc ay mbokkam wàcc yam dencoon ak yëpp fas yéenee dee ci yoonu yàlla ngir ëllëg mu am texe gu mat sëkk kon bi muy dem xolam lépp luy àdduna génn na ca yàlla dong ne ci xolam loolu moo tax mu am martabab shahid daanu àgg ci fu nu leerale shahid mooy lan ak maanaam njaayante moomu ak jëndante ni mu defanteeg suñu boroom te njëg gi di alalam ak bakkanam la mu jënd di àjjana nan la demee nit kon euh, mbiram lu am xatar la gërëm ci àdduna képp koo xam ne jàppe nga ko lu woyof ku waru nga ndax safara rek wala àjjana mooy ñaari kër yi nga xam ne faw mu jëm ci ci benn te la koy tey jëm ci bi mu bañ fii rek la koy jëfe te lu laaj farlu lool la laaj coono laaj yeewu taxaw jaxran la ko yóbbu ci kër ga mu bëgg ëllëgit coono la liggéey bu metti la ak wattandiku la kon maanaam yi nga xam ne ñoo fas yéene jëmale ko ci kër ga mu bañ ndox di gëm kër ga mu bëgg yàlla kàttanal leen day waral mu war a sonn war a gën a daggi gànnaayam war a gën a takku war a gën a génne xelam ci nooflaay génne xelam ci bànneex génne xelam ci fàtte taxaw jaxaran yeewu di góor fu mu toll te bañ a sàggan te seytaane ay pexem bari na lool te du tàggoog nit mukk fi mu juddoo ba ñu togg ko jëf ba fi muy génne àdduna fu mu toll rek di ko yàqal dana ko dikkal ci waxtu yi nga xamee ne ci la bakkanam di war a rot ngir bëgg li mu jaam woon yàlla yépp mu perte ko jëm ci kër gu bon ga amna ben wali go, xamne ben ne euh, do mas na laaj nako man de katam setan la bëgg xam nu mëna mën mu misal ko misal, misal, mu ne ko lolou doyu ma dama ko bëggone gis ci jëmam mu ne ko ah, seytaane baaxum de ko bañ gis mu ne ko man gis ko la bëgg mu ne ko ah, la ca mëna sababo nak lu ma tawattandiku la mu ne ko lu mu ci mëna doon rek bëgg sama kumpa dañ ci mu ne ko ah, kon nak bu bis sàngamee nanga dem ca dëkk sàng ca béréb sàngam ci waxtu takkusaan bala jant bee soo loo gis rek mu ñëw jëm si ci yow bu la laalee rek seytaanee ngoor jumma ji daal di dem ca bis ba ca waxtu wa ca béréb ba taxaw di xool ba mu yàgg mu séen jenn jigéen ju màggat di temp di ñëw jëm si ci moom mu ne ah kii de xanaa du ko ma doon kañ ma doon wax di jëm si ci moom rek mu taxaw di ko nekk bi mu agsi dal di koy song rek yenu ko ba mu kawe mu daaneel ko ci suuf dal di yëkkati bant bu wow xàcc ko ba di ko bëgg a dóor ah yow de su dul woon ne gis naa ne am nga juróom-ñaar fukki at yoo war a jaamu yàlla ci sa kanam te loolu ñu koo gàddu dul woon loolu danaa la dóor bant bii rek nga dee dal di ko fay wacc ci dem waa ji bi mu jógee ba dellu këram ni ah man de waaye gannaaw juróom-ñaar fukki at danaa ko dundaat ah, may sonn léegi mën naa toog ba juróom-ñaar yi rek des juróomi at wala fukki at ma daal di tàmbalee farlu rek ndax moom ak mujj a takku dekete juróom-ñaari fan la dese bi juróom-ñaari fan yi matee rek mu dal di dee deegu ko bett fekk mu nga woon ci bànneexam rek ak la ko neex ndax gëm la ko jigéen ja waxoon fekk na nag seytaane lenn ci loolu di lenn ci ay pexeem rek kon pexe seytaane lu mat a wattandiku la lu mat a ragal la fu ñu toll ulama yi dañoo wuti ci ndax seytaane nit war na koy def ci xalam faw ndax mën a mucc ci ay pexeem ñi ne leen déedéet waxtu woo xamee ne rek lu koy nuru ñëw na lañ ci war a def xel ñi ñi ne déedéet li ma a itte woo mooy ragal yàlla rek fexe ba xol dara lu ci nekk lu dul yàlla muy seen ñetti wax yu wuute fexe seytaane ma wuri ragal nañ ko lool wala yi seen bopp sax ñoom dañ ko ragal ba fu ñu toll dañ koy wattandiku ndax ñu am na benn wali yu boo xam ne dafa mas di doxantu bis fekk iblis mu nekk jëmmi waay yor déggam ak martoom te ci weñ di tëgg rek muy dox ba aksi dox ak gannaaw ba aksi ci moom teg ko loxo mu bañ a siggi rek nekk ci lim nekk dina ko waaye yow dooma dooma dooma xool sax mu ne ko looy dox teluma la mu ne ko waaw li ngay def ba telooloo ma lan la mu ne man day damay tëgg laxaab ji nga xam ne gaa yi yàlla yi laa ko fas yéene laxaabe ba mën leen a yàqal rek wali yoo ne ko ah waaw ah yow de doy nga waar kon mbaa man dooma ci boole mu ne ko ah yow de jaraloo ma dara yow jaraloo ma dara bu ma la xoolee rek sama ñaari bët ñi da nga jàdd bu la yàlla dimbaliwul kon ay pexeem doy na waar lool nit nak su bëggee mucc ëllëg xolam dafa war set becc ci ludul yàlla yàlla dong dong dong nekk ci xolam bañ ca bokk ak dara ndax lépp loo bëgg ludul yàlla mu nekk raay sa digg ak yàlla lépp loo xam ne lii séddoo na ak yàlla sa xol bi am ci place bis booy dee dana am lu mu jëf ci yow te loola la koy dindi leneen lay doon kon doomaa dama war nay farlu ci dundam bala dundam a jeex ndax amul benn capital lu dul dundam dundam gii li muy gàtt gàtt ci la fas yéenee yéwénal ëllëgam yàlla def nit muy ku bari pexe pexem yooyu it li muy bari lépp lépp lépp lépp mi ko jëfe ci li ëpp ci lu koy lor rek maanaam addunaam lu mu yaakaar ne mooy waral texe addunaam rek fàtte texe àllaaxiraam bu fekkoon ne nag xel moomu mat na dëgg kon pexe yooyu yëpp daf koy jëmee ci lu koy musal ëllëg te jaar ci sunna si yàlla si nga xam ne mooy aada jim jëflanteeg waa adduna yi yàlla nee na wa nada'u al-mawaaziin al-qista li yawm al-qiyaama yàlla nee na dina teg ay balance ëllëg balance yu juste juste yoo xam ne li ñuy wax lu sensible la lu tuuti tuuti tuuti lu mu woyof woyof balance yi dana ko génne day wane rek ne nit daal te nit daraam du rëcc te daraam du raw loo tax sallallahu alayhi wa sallam nit na profité ci juróomam balay juróom fi mu amee kàttan na ci farlu ci jaamu yàlla balay néew doole ndax màggat fi mu wéree na ko def ci jaamu yàlla balay tawat fi mu amee na ci wut ngërëmal yàlla balay ñàkk fi mu na ci jaamu yàlla balay soxlaa ñëw fi muy dunde na ci góorgóorlu balaa dee ñëw ndax juróom yooyu yëpp lu ci nekk la cay topp day tax dootu mën a def dara fal yatazawwadu l-mar'u min nafsihi li nafsihi wa min dunyaahu li axiratihi ci boppam ci alalam ci dooleem dawal ko fu mu jëm ëllëg na ci addunaam dawal ko àllaaxiraam ndax amul ci li mu denc alal ji mu am amul ci lu dul li mu lekk ba mu rees ni ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam li mu sol ba mu ràpp wala li mu dalal ci bàmmeelam rek amu ci leneen te adduna romb waay rek la dañ fiy romb du yéy tool la itam boo xam ne dañ ciy bay lu ñu ñoo ci àllaaxira kon foo xam ne romb waay rek la ku ko def kër yaa tooñ sa bopp mais sallallahu alayhi am na bis fekk na am na ñetti fan kenn toggul ci këram lekkul dara ànd ak Seydina Abdullah ibn Umar ci biir Madina bi mu agsee bay romb sàkkiti kër yi nga xam ne yenn ti tàndarma daf cee sax ngelaw li wa dalli doomu tàndarma yu yolox sallallahu alayhi wa di ci for ne abdullah ibn umar do fora ne ko am ah, man ne ma yi bugguma ko mu ne ko waaw ah, man mi nga xamne ñetti fan ngi ni dara duggul sama gémmiñ bëgg na ko loolu xam na ne ba ko waxe fekk sidna jibril dal di bi mu jallo jibril alayhi salam dal di dégg ci gannaawam mu geesu ne jibril kii kana mu ne ki de israfil la dafa dégg baat bi nga wax mu ñëw sàkk sa ngërëm ne suñu borom may na ko montagne yi wër Madina yépp mu soppi ko wuru sa xaalis jox la ko ndax lott bi nga sa sallallahu alayhi wa sallam ko man lu may doyee lii ni may demee ci adduna maa ngi mel ne kuy tukki dox ba ñaq taxaw ci kër garab ba sa ñaq feri nga dem kooku soxlawul kër ci kër garab nga xam ne du fi ne lu bu ñaqam fere rek mu jàll ndax buggul Euh, yéexal tukkeem bi bëggul a tardé kon xam na ne loolu lépp yeenu mun wan ne addina du kër te ku ko def kër da nga ko rëccu ëllëg ndax bu gis dafa ne ci kanam boo xam ne suñu borom misaal na ko lu bari ci alquran yubassirunahum yawaddu mujrimu law yaftadi min azabi yawma idin bi banihi wa sahibatihi wa akhihi wa fasilatihi allati tuwihi wa man fi l ardi jamian suma yunjihi bu keroogee ñëppay janloog ñëpp ba kenn du laaj kenn yaay kan janloog bi nga janloog ku mu xam la mu nekk gis na mu mel te ragal nga boo ko feeñoo mu am xàq ju doxoon seen diggante mu laaj la ko te keroog ñëpp lott nañu kenn doylewul ngëneel te ñëpp lott nañ ci am tuyaaba kenn du laaj kenn kenn waaye gis boobu aji tooñ dana ngéejoo woon fu metti fofé mu jël ñu fat doomam tek fa wutal ko fa te mu mucc mbugalum bis boobale su nit ki sañon ñu mbugal ko doomam ak soxnam wala mbokam rakam wala magam wala ndeyam su sañon sax ñu joté ko bindee fi ci kaw suuf yépp nit ak jinne malaika ñu joté ko ko mu mucc te ñoo ñu lakk leen ndax njaqare ak tiit ak jaaxle ku nekk xam na ne loolu lu tiis tiis la fa nit di demee ba bëgg ndeyam ak baayam ak doomam ak ñi mu xam ñëpp ak xaritam ñu boole leen dugal safara te moom mu mucc mbugal moomu mu séen woon ne ci kawam la jëm te xam na ne du ko mooy ñu def see ñooñee te moom mu mucc bis boobu ku ne xam ne ne mattaa fàggu na loolu lépp li koy waral moo di mooy mooy ba mooy jeex nag am na yu ci yées lépp bon waaye bi ci yées mooy bi wowal xol te bi wowal xol bokk na ca bëgg àdduna lool bokk na ca po mu bari ndax day fàtteloo nit ci yàlla te lépp luy dox diggante jaam ak boromam day waral texee di kon po ak ëppalante alal ak fàtte ëllëg day waral xol bu wow te xol bu wow day waral texee di xol dana wow ba tawat xol dana tawat ba dee bokk na ci ci gën a bon te gën cee tiitle mu di mébét nit fu mu toll mu ngi mébét lu mu am ngi seenu ne day dund ba faw rek wala dund bu yàgg di seenu lu muy yàkkamtee am di am ay bëgg-bëgg loolu day tax du fàttaliku mukk dee du seetlu mukk ne mën naa dee tey mën naa dee ëllëg mën naa dee ngoon bu ko defee du ko fàggul mukk mu ngi fab xolam rek aj ko ci yoolee mu yaakaar ci mbiri adduna nëbët mu yàgg nëbët mu gudd mooy loolu la bokk na ci yi nga xam ne baa ñu baax ñi fi ñëwoon ñëpp wattuloo nañ ko nit ñi ndax li mu mën a indil nit ci lu bon dana leer bu soobee yàlla mbet mu gudd ni mooy tax li gën a bari ci yedd ak gi bàmmeel di tëkku nit waxtu wu nit yewoo teg tànkam ci kaw suuf suuf dana ko tëkku bàmmeelam dana wax ak moom te du ko dégg dana ko ne ah yaa ngi fab sa tànk teg ci kaw suuf jëm ci ay soxlay rek di ko lijjanti mel ne doo ñëw fii mukk te man de maa ngi lay nit man maay néegu lëndëm de maay néegu wéetaay maay néegu sax bu ko defee sa jëf ji ngay jëf dana la dawlu ca mbàmmeel ba ci wax toow moom itam dana am lu mu la wax dana la xamal ne man mi nga dawal fii maa ngi lay nit te duma fi jóg mukk lu nga agsi boo ñëwee nag li may jëf jëflanteeg yow mu ngi aj ci sa yéene la nga yéene ci saxal say cër jëf ko loola boo ñëwee rek man maay mi mën naa nekk day jaan mën naa nekk safara mën naa nekk itam xéewal gu dul dog waxtu wuñ koy yor ci bàmmeelam jëfam yee koy njëkk ñoo koy njëkkante koy alawti ko bu duggee ci bàmmeelam bañ tëral ko jikkoom yi mu jikko woon ñoo njëkk a génn ci moom di ay jëmm tàmbalee jëflante ak moom waxtu woo xamee ne rek ñu ko doon denc wan nañ ko gannaaw bay dem mu ngi dégg ba tey euh, seen tànk yi ni ñuy dale ci suuf ñooñu balay malaayka yéeye ñëw ñi koy laaj ci bàmmeelam ñooñu daañu tàmbalee wax ak moom xaat kon nit ki du li muy dund ci àdduna bi jamono bu gàtt mu war ci yéwénal dund goo xam ne du fa jóg mukk muy ñaari dund alxayaatul barzaxiya wal xayaatul uxrawiya wa qiyaamu saa li <coughs> muy nekk ci bàmmeelam lépp ba ba saa taxaw te xamaguñu kan la yàlla rek ko xam <coughs> lam fa dawaloon rek la fay dunde moom la fay soloo ca lay tëdd bu fa jógee ba bis penc ba fa mu jaar jëm ca bërëb bu pang ba ba fa jaam ñooy daje ak lañ fay nekkee ba nañ fay jógee ba muy jéggi siraat ba muy dugg këram ci jëfam yooyu rek bu demee àjjana it lim jëfoon rek <coughs> kon dund gu dul jeex mukk la ku ko bëgg a fàggul ci dund gu gàtt say nelaw waru la bari sa fàtte waru la bari te texeg foofa ko wut fii li ci gën a gaaw mooy dëddu àdduna jublu yàlla jublu yàlla ak sécurité yépp لو كنت توقن ما ياتي امامك من هول ومن سكرات كل ايقان لما اشتغلت بدنيا لا بقاء لها بجمعك المال من قاسم من ذلك loolu xasida gi ñuy wax yaa saatun listixaali dañu yoon si Ahmadu Bamba di wax ne yow doomu aadama nañu boppam la ko xutbaa woon ci njëlbéenam bu fekkoonte ne wóolu nga dëgg dëgg wóolu li li nga jëm ci sa kanam ci ay tiit ak sukkuraatis ndee nga wóolu ko gépp góolu kon doo soxla woo adduna yi nga xam ne du sax te lu gaaw wii mu ne bul waru ci poñotum àdduna mi nga xam ne da nga ko fi rek da nga koy waccal lay doon mu di say doom ak say mbokk mu képp koo xam ne yaa ngi téye alal di ko dajaleeg di ko denc lala cay lu dara lu dul la ko ak nga perte ko rek mu ne bari nag aji sàggan joo xam ne dee ngi ko tiim ci kaw kàngum boppam bu xamoon secret ba kon dana naaw ngir tiit kon dana al ko ci nit am juróom-ñaari cër yi ko yàlla dénk te juróom-ñaari yëpp benn bu ci nekk daan ko laaj ëllëg te benn bu ci nekk da wax li ñu jëfe ci yow ëllëg kon yàlla na suñu borom dimbali ci sàmm loolu cër yooyu le di ñu ci matal xaq sharia muy yoon yi mu tëral alquran indi ko dafa bokk ci dafa bokk ci melo adduna ak soppiku loolu ñuy wax capital dañu adduna ko dàq soppiku ndax du sax ci mel mbir ci benn jaar bu la bëggalee tey naqaral la ay bis su sellee tey ci yow benn jamono benn waxtu dana nëx ay waxtu yu bare bu la reeloo tey dana la jooyloo ëllëg ay yoon ndax lépp loo ci am bànneex lu mu bari bari ëllëg rek dana la ko fàtteloo naka noonu itam coono yi ñëw gannaaw gi dana tax nga xam ne bànneex bii nga jaaroon démb amul benn njëriñ amul solo fàtte nga ko tey xaat moo tax ñu ne borom xam-xam yi ba ñu jeex ñi ci gën a tedd mooy ñi daw ak seen diine wacc àdduna te wuteeg seen bànneex nee ñu boo gisee koo xam ne kii nee ñu xam na dara te mu wëlbati ko rek jublu àdduna kooka bu mu la doy mukk ci sa diine ak lu mu la mën a wax bu ko doy lool loolu moo tax ñi gën bari ci ulamaa yi dañu daan daw buur jullit yi sax laa wax buur jullit yi nga xam ne ay xolofaa lañ nekkoon dañoo nekkoon di taxawal sharia ci kaw suuf di ay jullit ñoo xam ne dañu daan jiite ay xare ci yoonu yàlla ngir topp ndigalal yàlla ak yonent bi ñoo ne sax képp koo xam ne xamal nañ la ak jeng lu néew néew borom xam-xam yi dañu la daan daw loolu buñ seetee te bu ñu wax jawharu nafis ci Ahmadu bam wan na ci lo xamne deugal na lol lol ba misal ko misal mi gën a rafet mu wa man yushariku buna fi izzihim yakun sharikuhum hadan fi dullihim nee buri buuri yi nga xamne ne seetlu wuñu li ñu yor fañ koy jëlé ak dagana ak xaraamam kep ko xamne bok nga ngaa ñoom seen teranga ji tay bu ëllëgee da nga bok ñoom seen toroxte ja ëllëg aduna nak wattandiku bi ñu koy wattandiku yëpp nit ki dina bëgg